novembre bleu comme octobre rose ni ko jigéen ñi daan defee ñu koy def ci adduna bi yëpp di euh, saytu góor yi. noo koy seetee ci góor lu si ëpp du am benn mandarga bu tax nga ne nit ki am na cancer. wala bu fekkente ni mu ngi tàmbalee am yenn jafe-jafe yëg yenn yenn yenn jafe-jafe si yaramam ça veut dire que feebar bi mu ngi law mu ngi commencé jëm kanam. kon li ci gën mooy nga ñëw moment bi nga xamante ne yëguloo dara sa yaram waaw loolu nag lu xaw a jafe la ndax amuñu registre de cancer pour mën a xam malade yi nga xamante ne ñoo am cancer ñaata nañu toll waaye li ñu mën a xayma mooy at bi ñu génn lu mat euh, junni nit jot nañ euh, gis si ñoom cancer de la prostate waaye ëpp na ko ndax am na ñoo xamante ne jotuñu ñëw am na ñeneen ñoo xamante ne gis na leen fenn te jotuñu ko recensé waaw li ci am solo mooy ne góor ñëpp xam ni que feebar la boo xamante ne feebar bu bari la ci euh, ci góor yi luy gën a jëm mag mën na feeñ ci yow diggante bi nga amee ñeent fukki at ak juróom jëm kaw war nga mën a at bu nekk nga dem gis benn urologue pour ñu mën a saytu prostate bi ak def analyse bi pour xool ba xam am nga ko wala amoo nous sommes réunis ce matin c'est dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer de la prostate dans le cadre de Novembre bleu qui est organisé un peu partout dans le monde à l'instar de Octobre rose pour euh, améliorer la santé des hommes euh, et plus particulièrement le, les cancers masculins. Et en tête de file, le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez L'année dernière, nous avons recensé environ nouveaux cas. Durant, cette année, nous avons eu nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués. C'est vrai que c'est, un, c'est, parce que nous n'avons pas encore un registre de cancer pour pouvoir euh, avoir toutes les données. Et également, il y a beaucoup de patients également qui, en souffrent et qui ne viennent pas